nuyu nañ leen tey nag samedi lañ ne 11 janvier 2020 Fallou Ndiaye fi woote tey ji bésu tey bi jàpp leen ko Iba Mar Diop di ngeen fi gëj a gis làmb ku koy mujj a tëgg fii tey Fallou Ndiaye ak njaay production ku mu fi woo aada Fass Fass bennoo ak kan bébé bismi bu dóor dóoraat moo tax gis ngeen buntu bi nii rang bi gis nga ni gars yi di duggee nii fees lay def stade bi xam nga ne yàgg maar yaa gis lii gis nga kii supporteru Ada Fass la waaye ñi ndeysaan xool ko xale bu jigéen bi mu ngay daw booy tee ngaa taxaw looy daw xame nañ la waa Fass xamme nañ la kii moom mbër la bëgg naa la. siyaar naa la ñëw seetaan si tey. dama ñëw seetaan si Ameth Lagros laa andi quoi. Ameth ah, ngeen di tey. waaw waaw mook bébé mo mo mook mook mook petit xarañ. bilaay xarañ bu ndaw. Ameth loo xaw ma loo. mais du ko booy bi jàppee dina ko songali sànni ko fole. mu ne mu ne Ada Fass magam la xëy itam la. Ah, waaw loolu kese ngay wax non non wuyu anti bëggee naa la. waaw dina bëggee waa Leewtoo TV Babacar dina wër. nga yëngu yi seen mbër yu bëri Ada waaw Fass yëpp dal ko ñëw defal waa ji affaire gaaw dem ñibbi non bu ko jàppee ma xam la bu dëgg la doole doxul jàmm tey ndam kase xale du juum ñaari yoon yaa kanam. Cheikh Seye mi ngay kii moom sama fan la moom sama soppel la. waaw nga dégg waaw nga dégg sant naa bu baax. tey da nga seetaan su ko àndal yow. Ada Fass. waaw ñun maintenant lañ dégg Colobane Gueule Tapée. xanaa Cambérène amu fi. fan fii nii. fii man Koña deux de. xale bi ah, Colobane. waaw man la dofu tonnerre. moo ko déggul maa ngi nii. gis kay ngi lay gis maa ngi waa yaa wax lii de. maar da nga may nii la ñu duggee ci Ndaysaan premier combat de la soirée yàgg maar màcc soufflé na Mboudaay ne à gauche Mayga à droite ñu ngi jàkkaarloo kenn damagul dañuy jat Mboudaay ne day ñaan Mboudaay ne ngay ñaan Mboudaay ne ngay ñaan Mboudaay ne ngay jat ba tey de ñu ngi ne teg xanaa di daje pare na de acca ñaari gauche ay garde normal lewato mbudaay ne à gauche ngemb bu marron may ga à droite ngemb bu weex samedi 11 janvier 2020 Serigne Ndiaye ngongu Serigne Ndiaye bu xarañ loo loolu daa sori mbudaay ne nuyu naa waa ngu njaan mbërëm biram ñi nga ak saar waa mbuur waay waa càngaay lépp ci ngunjaan li nga bëgg dafa sori may ga day bañ ko jaxase meewam may ga ak mbudaay ne jàppante ba tar na ca suuf mbudaay ne ni mu def ñaari loxom yooyu may ga ten koo bañ loolu dalulam xel de mbudaay wala boog may ga a ah, a ah, a ah, a waay may ga dina daanu di wala ñu ngay raam de ñu ngay raam de ñu waay waay waay booy waay daan na ko waaye may ga meew ma yàqu na yàgg meew may ma am na suuf. bu ko tojee ñàkk de. mu ngi koy laal ca suuf de. botti na ko mu bañ. laa ilaaha illallah. ñu ngay bëre de. Karbala Michael. supporter grand supporter Modou Lo mi ngi fi taxaw nii Modou Lo rek moo ko yëngal bokk ci association jeune amateur lu yàgg siro ami ci préparation ak entraînement nan la nan la ñu amee xale ak ay siro ak ci ñaari amet yi a koy arbitré poulain Tapha Tine ak doomi Modou Lo Njanjaar Tine la dëkk moom amet Lo wala lagros avertissement amet Lo Matar day suuf la yàgg maar mbërëm Asi mi amet Lo Asi Diagne ca ak sot sa mbër maa ngi waa kii ak tubaabam yi moom wax leen ak kii ak tubaabam yi waa lii lan la maar demal ñoom da yëguñu lu xew gëdd ko de eh Amet Lo gët na Amet Lagros am Amet Lo gët Amet Lagros pied gauche Amet Lo pied Amet Lagros pied droite Amet Lagros moo leen wan ginnaaw Asi Diagne sa mbër maa ngi borom nu ak sot borom KMB waaye Amet Lagros mbërëm jamono la wàcc na ko kat appi eh amul kat appi am ah am na kat appi de am na kat appi de am na kat appi de ah way Ahmed Lac Rose dafa dugg daa tarxiis waaru na ndeysaan Ahmed Lac Rose Ahmed Lo waaru na Ahmed Lo waaru na laa ilaha illallah ee eh, yàgg maar Ahmed Lac Rose Ahmed Lo am na lu bett yàgg toppal ma lamba ngi maar lamba ngi de lamba ngi de xool ko xool ma Ahmed Lac Rose xool Ameth Lac Rose mbërëm bada jot na xool xale bi xataa ñu na ndaysaan jógal gaa yaa ngay jooy gaa yaa ngay jooy Serigne daw na jëli ko. Serigne Ndiaye ah. ren eh, la maar. wax bi disu kon ci yow. combat bi disut ci man lii di dara. taay na petit loo doomu Modou Lo. bu ñu ko soufflé waatoon dama ko bëggoon a jàpp sax du ma ko. ko naxee ba dama ko bëggoon a dóor mu wàcc. barket maam Serafal mais coup bi lay mooy lu far. bëgg waa ji dama ko bëggoon a dóor mu daanu. barkeel bi ma ko yërndoo noonu bu taxawoon dama koy dóor mu wàcc. waa maa ngi ñi may jàpp ñëpp. mais damaa gis nga mos a am confiance ci combat bi. ko combat yëpp Babacar fu ñu tase looy def nii jàpp ci rek village booy du ma seen morom. gars des am nañu problème mais Babacar da nga may jàppale ma sant waa Alkayda gars yi yëpp ak waa Robos. waa Robos waa Raay ma ko. léppay doom Ngopa maa leen sant. di sant Garam Zal. borom oxygène wala borom raay bi ci loo ne mbaam nga jàmm yàlla nañ ko yàlla boole kon xool nga lee ngay seen morso yéere yee ñu summi di ko wëndeel ku wen seconde ci làmb yi yaat ma nga ne ah léeg-léeg yëfi ku yéere yee ñu summi daal di ko wëndeel ku wen ko moom bari ñu la fekk baax de lee moo ko njëkk a def Demba Diop. Ah, waaw xale yi léegi xam nga bu ñuy signature moom lu ne la ñuy wax waaye saa yu Malick Ngom soufflé ku lay liwaatoo jëmale suba. bu signature doon lamb yi daanu dina bëri. ñaari signature yi ma def fan yii de tuuti mbër mi mbër ya dóor ma waaye bés bu arbitre bi soufflé nga gis lu bokku nag lool. mais Babacar ko wax si góor góor la si yàlla góor lu ci wax góor. góor ah looy xoolal. léegi nag tey def seen liggéey ñu ne policier yee def xam nga lii itam am ñu àtte leen nag xoolal xool ñaar ñee xoolal xoolal waa lii garaaw na di xam nga lii ñaaw na de arbitre soufflé na combat ba nun waaw léegi daanu nga dafa sonn daa sonn eh eh waaw xoolal lii. waaw waaw Ada Fass su la quoi. équipe Fass ak Fass benn benn la donc boo amee combattre bi taxaw war naa taxaw. ndeysaan Ada Fass a ngongu Jili Mbaye doon moom yàgg maar ay sengoor xoolal lii yàgg maar yaram daw na. ilaaha illallah eh maar. xoolal lii eh waay jili maa ngi ci ginnaaw ak anti ak cuuj ñoo ko wër ndeysaan almaami

ñoo jëloon suñu ambassadeur xale yaa ngi noonu di yéeg léegi ci kaw wax déedéet ah booy ñaate ah maa la ko ah jim bi yor ah ndeysaan fekk naa leen xale yaa ngi noonu ndeysaan ñëpp doon walaay ñun ku yàlla baaxal ku ko naari maa ngi tudd Ba. waaye yow dañoo war a yëg ah bébé bi si yàlla noonu. directement dans la force de Bété Bawa. ko mbaxarañ ñëw maa ko ko mbaxarañ ko mbaxarañ ko mbaxarañ ku bëgg moom ñëw sa mbokk ku bëgg moom ndox la ci sa tur ñëw maa ko ko mbaxarañ ñëw ñëpp ko mbaxarañ ànd ak Deba ko mbaxarañ Fall Boy Niang 2 Yoff Jin bu Yoff Yoff Sekk Ndaanaan Yoff Murta Yoff ak Bébé Fass Pape Gouye Gui à droite Bébé Fass à gauche ngemb bu xonq ñu ngay lewaatoo Pape Gouye Gui Bébé Fass nga dóor Bébé Fass nga fayu na faq na ko mbaa ko daan xalaat naa doole am fi bii combat xalaat naa doole fe Pape Gouye Gui Bébé Fass laa ilaaha illallah ñu nga ca ee eh, dina la Pape Guy gi moytul Pape Guy gi moytul dina tegal sees bañ na dana la ngoobu de Pape Guy gi eh Pape ak Bébé Fass laa ilaaha illallah waay biib combat waay Pape Guy ak Bébé Fass Pape Guy gi foo jëm Pape Guy gi bul la daan génn nañu eh eh gi Bébé Fass eh Pape a ngi koy dóor eh daan na ko dóor na ko ba mu daanu dóor na ko ba mu daanu Pape Gouye Gui waaye Pape Gouye Gui arbitre doo bàyyi waaye arbitre lii jeex na waay wala lii jeexul arbitre lii jeex na de Pape Gouye Gui bëggatul Pape Gouye Gui bëggatul de Pape Gouye Gui bëggatul de guy way daan na ko door na ko bañ ba dañ mu daan ko waaye door ba bañ ba dañ Bébé Fass ndeysaan Bébé Fass waaye Bébé Fass xool Pape Guy gi Pape Guy gi waaru na Guy gi bëj ba tañ na daa ni de Pape waxoon naa la ko ca signature ba noon naa ko kii day combat fi gën a mit boo ko gisee muy yokk nga xeeb ah, kii Bébé Fass mi léegi musiba la ci làmb lay jaar waaw ñu ngi sant bu baax a baax sama xarit bi tey nga si làmb waa tey ñëw nañ ci làmb ji rek xam nga li ma indi restaurant bi VIP fast food c'est Adja Degen moo ma yëkkati noonu nga xamante ni macha allah réew mi ngi koy commencé xam réew mi ngi commencé noppalu ci lekk gu neex macha allah gu am hygiène gu set boo xamante ni boo def anniversaire mën nga ñëw defee ko fa boo wootee koo toog ñu indi la lekk gu neex gu set boo xamante ni vitamine kese la moom lan àndal moo sponsorisé làmb ji ndax doomi réew mi la jàppaat li am ci réew mi te amuñu lépp làmb ndax mooy sunu cosaan. jaajëf ëpp na ñoo far yow kenn du yow Babacar jaajëf. <laughs> Fallou Ndiaye ëffalkat la buur géwél. waaw mais Babacar noonu lay demee sax incha allah. tey de ëffalati nga. waaw mais tey noonu la mais am mbégte Babacar surtout ci yéen Babacar yow Lamine vraiment ñëpp. gis nañ seen taxawaay ci ñun ak yéene ji ngeen am ci ñun di ñu jàppale tey bu mbir yi mel nii da bay waar bu am solo kon nañ leen sant bu baax a baax di leen gërëm di gërëm na bu baax association promoteurs yi surtout association bi nga xam ne ne surtout tey suñ président muy baa Abdou Fall ñu ngi taxawaayam ci ñun ak jàppaleem ci ñun ak lim ñuy dooleelee kon duñ mën lu sant leen bu baax di sant sama mag sama xarit El Hadj Yande Diop moom gis nañ taxawaayam ci man dooleel ma kattanal ma fu ma mën di toll barke alxuraan dama toujours mu ngi sama wet kon dama koy sant bu baax di ko gërëm di sant famille lamb yëpp di sant amateur yëpp Babacar merci. tubaab yi dañoo miir ci Bébé Fass dañoo miir ci moom xoolal ñu ngi koy may xaalis waaye tubaab yee miir ci Bébé Fass. tubaab yi Bébé Fass kañ da nga may tubaab. waaw da nga may tubaab léegi ah. amay tubaab. waaw dama mais mais booy bi loog da ko koo dóor bëñ bi wadd wala. booy bi dama koo dóor uppercut yu dal. loolu loolu xam naa dafa gaañu nag bëñ yu xam naa dafa am problème. waaw mais bi mu la waree tiito. non tiitu ba parce que man ndaaraanu bëri laa ku ne xam ne ne man damay bëri tey sax barki Rasuul laay bëgguwaan loxo jóg damaa bëggoon a bëri moom daal ko jël bu garaaw. mais foo jàngee bëre. non Fass laa ko jàngee xam nga man maa gaa yëpp entraînement ñoom Sosek ak Abdou sama xarit sama papa di ma woon ne man nii nga defa jàngal ma bëre ma mokkal ko. mais ak nii nga sawe nii nii. waa ab lii mooy rey gaa yi parce que man ni ma toll sama doole da koo ëpp boo gisee du ma laal weñ barre fixe rek laa def appuyer looloo waral ma sawe nii volume boobu. amoo benn garas. non amoo benn garis moo tax duma ma sonn fii ba suba tey bu ñu doon bëre fii du ma sonn. waxoon naa ko ko de noonu naa ko est-ce que xam nga kii. waaw waxoon nga ko ko mais xaw man xamu man waaye si saale woon nga ko ko léegi nag nii la demee tey gis nga ko rek war naa ko maa maa ko gën a kontaan ci yow kontaan naa ci bu baax a baax. am mbaye mën a fecc séeri Khady Ndoye sam toj nga Grand Théâtre. waaw mais bëgg naa la xam nga bésu kanji rek dama war a sedd waaw vraiment ñu ñëw soutenir ko waa xam rek sunu yaram xaw a tàng ñu jug maa loox loolu. deretu lebu yor. mu demee bu déggee kumbe rek yëngu. maa la la mais du jox ñëpp dig daje le 4 avril. le 4 avril. Coly Faye général. ku bëgg a gis njàpp. ku bëgg gis maaj. ku bëgg gis gumba gu rëy. na nga teel a ñëw. le 4 avril ñu fête indépendance. lu leer laa la ak Sam Production. kenn mu segis loolu. du mën a ñàkk. béyee Idaalee Ngom. Babacar maa ci loone sant yàlla bu baax. bi kañ la. waaw ñu ngi koy waaj nag arène nationale. waa di euh, maam yi nañ ñu ñaanal daal ñu àggale foofu la ñuy tëj suñu saison incha allah di ñaanal nag Sam la kat suñu borom defal ko ci defal ko jàmm ak gars ci kanam yëpp di jox gars yi rendez-vous suba ah, le 12. fii la drapeau Matar Ba <laughs> ci loo ne. maa ngi sant yàlla. looy lekk ni lii ndaamara sañ koy wax. andi ma ci. dama ko nëbboon laa xam. bu ngay koy nëbb maa jam dama laa yar. bi ma la séenee ngay ñëw laa ne xaaral ma nëbb ko balaa ngaa yegg. ko ko gis. teen boo re toon boo gas rek root naaj. waaw loolu moom dëgg la. ci loo maa ngi sant yàlla. borom fara ak. bébé Saloum. say jam. lu tax nga doy waar. sargal jigéen. yow laa niru yaay. sargal jigéen. le huit mars dimanche sa tombeeg nga ama baax. waaw yaa ma ko tànnal. Ah, sargal jigéen. wallaay loolu laay def ren. kon de drapeau jigéen ñi lay doon xanaa. jigéen ñi kese képp kuy jigéen ci réew mi maa ngi la ciy sargal. koo koy lu lay maa koy jox maay joxe drapeau bi xama kuñ koy jox suñu yaay meeram Faye Sall. jeex na kon moo koy joxe fondation servir le Sénégal. bilaay ah mooy mooy mooy première dame bi di. c'est normal moo jiite jigéen ñëpp. waaw kon yow li nga wax ni loolu la ñuy def yow jam production yaa si décidé loo si wax loolu laa wax. Fara góor a so ma naan Fara bébé Saloum. combat waar. 8 mars. Franc déggagul mu ñëw Bébé Saloum ne dama koy freiné. Bébé lii la wax. nee na Franc daa jum bu laajoon ay magam du ma jël. waaw moo moo moo garga métti woon. mu nekk lamb joo xam ne gars yi naan dañoo namm lamb ju mag lamb jooju lu waay di séntu xaar ko fa arène nationale ba. te am na looy def Gambie. liiru jaan ak wulli war see leeral. fii Ndakaaru. fii Ndakaaru. fii amul daw de. noo fii amul daw fii day leer. fii leer li doy waar li wulli def na liiru def na ma. wulli aj naa ko Gambie à vie. Sénégal dama lu tax ma bëgg combat bi dama ko fee bëgg a aj dootul bëreet ñu aaya ko bëreet ci loolu la bëgg moom loolu la bëgg. aj ko Sénégal aj ko Sénégal. mais kontaan naa ci yow. Babacar maa gën a kontaan di wax ne waa Gambie tamit nañ ma xaar. demal kooku waaw demal mu ngay wax ak supporter ya eh waay eh waay waaw waaw waaw waaw waaw taj taj taj git git git git sa kii taj taj taj taj waaw eh waay defal lu la neex dellul ma ca combat ba man daw na jël ko mu bañ jaa da koy daan oh daan na ko eh daan tur loolu ànd bi da koy tere Outhia daan na naturel daan mu ngay fecc e waay Outhia e waay e Ada Fass yaa ngi e waay Ada Fass jàppal ma loolu Baye ma Ndiaye ak Hercule ma Ndiaye taxawoon fii Lamine moog Hercule la ñoom ñaar mosuñu am defet tey dinañ ku ko ci am. maa la ko wax. ma Ndiaye féete droite. moo gàtt géej way ca Waalo. waaw Hercule nag moom. moo njuul moo njool te ñuul wala moo sut arbitre soufflé na de waaw waaw waaw ndeysaan Baye Mandiaye un dóor yu métti Baye Casamance wallaay waaw ñu ngi eh, kawate kawo na de kawo na de Hercule kawo na wala kaw eh Baye Mandiaye ngay làmbatu Baye Mandiaye ngay làmbatu de waaye neex na de na ko de war na ko ndombo mu ngi koy dóor mu ngi koy dóor mu ngi koy dóor Hercule da caa bëgg a génn na ca maa xam berkel la doomi fasak ak mbaam. mën nga waaye yow moo am dëkk ba suñu dëkk Lamine man nag yaay laa dëkk ca kaw ga. yaa Lamine yow itam. xam naaw bëy xamam xar xamaw nag xamam sikket. xam nga tef. tef mooy bëy bu ndaw buy door a juddu. sëll sëll mooy nag wu ndaw ab liirab nag barmol barmol mooy doomi fas Lamine kaw ga lañ dëkk yow nag ay fa kaw bu dee lee moo ko moom ah. ba pare mën a bëri ah. dina garaaw eh jël na ko jël na Baye Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye fiñ la dugal ah. baaxul wala xoolal mbaa du la dëj dañ maa yenu loo waaye fa mu jël oh rëcc na rëcc na Baye Mandiaye daan na ko la ilaha illallah eh Baye Mandiaye eh waay ndaw Baye Mandiaye def na yëfi mbër ay waay yàgg maar Fara sot na bay dem mu ngongu toppal ma ko kooñaa la doon conseil day nëbb Fara xàmme nañ la Fara Fara gis naa la

su la sottee dara ñun ñoo koy doon mais ñii amul bilaay saay yéen dañuy jël ci géej gi sax dañuy ko jël ci géej gi dañuy ko jël ci géej gi moo ma sotti saa gën moo ma sotti affaire waa ji bandal daa daw fii di toog dala di mu tax man na génn fii ma jox ma xam sama ñaari ko jënd Ada penyanyi nage gini ya kok. Eh, nyari penyanyi gini kok, wow, gini kok. Bye bye. Eh, nyari penyanyi gini nggak jamu. Nyari, nyari. Ah. Wow. Pengen pengen sëñ maar jëlal ma lii maar xam nga xam nga lii li poftan la Babacar poftan a ngi maar lan lay ah, la de lu doy waar a ah. ko waar ci làmb jéggi na ko da koy toj toj toj dem na ca géew ba Ada Fass. arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom waaye yàgg maar li ma seetlu tey rafetlu wu ma ko man xale yi il faut ñu gën a andiwaat jikko joxe cër wek seen bopp wek ñi leen di seetaan waaye wek lii ñuy def muy làmb waaye am na yoo xam ne nii boo koy def yaakaar naa day xaw a nuru lu mel ni ñàkki teggin te ay teggin nag am na solo ci doomu aadama waaw bàyyi leen ci xel yéen ñun ñëpp sax laay wax waaye ñu jaal waa Sénégal wala waa làmb buur géwél bu naka rek CFM na ko yàlla te jéggal ko Mathia suuf la na waaye Fatma Dia suñu confrère borom info info réew mi happy birthday to you tey la 11 janvier di bésu anniversaire am yàlla na ko yàgg a fàtte feete Fatma Dia di suñu jigéen di suñu rak armi suuf la na Ada Fass à gauche Bébé Bismi ngeen jàkkaarloon ci Babacar ay wax yàggay filmam may nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaye Aliou bu yankaaw tey moo ma solal blouson waaw bu rafet a rafet Aliou ca marché Thiaroye maa ngi koy nuyu Aliou borom ndondol borom mbomboy waaw waaw maa ngi lay nuyu di la bëgg sama rakk ji waaye Moussa Diouf wala Mor Mor Diouf Petersen moom itam bokk na ci ñuy solal Babacar nuyu naa ko. nuyu rim ka Couture borom Touba Sandaga spam Cheikh borom Daaru ñoo ñëpp ay soppe lañu Saliou Khoule borom Zik FM wàcc na jàppante nañu wetu mu bañ aada ak bébé jàppante nañu te konte mbaar bébé bismillah am avantage su wet boo xoolee moo gën a njool aada lu mu def door na ko aada koy door aada koy door waaye bébé daa jàpp bébé bismi daa jàpp de ñu nga cere ñoom ñaar ay mbapatkat lañu waaw ana fekk naa ko sowal muy mbapat sowal waaw kon jeex na wax nga dëgg eh loolu baaxul de ay hyperkip mu ngi koy sëkkatal a daa ngi koy sëkkatal daw na jël ko mu bañ tànk bi la bëgg a jël relance bi daa njool jël na tànk ba mu bañ laa ilaha illallah bare daan na ko laa ilaha jël ba rëy jël bu rëy waaye jinne ngi aada faas doomi faas jël ba rëy yàgg maar jël ba rëy oo oh, aada faas sobe maa ngi leen ciy woo suba arène nationale ñoo ni ceeg mbay Yékini production drapeau Baye Balla Mboup le griot du peuple du ay maa ngi ciy woo ne nañ ñëpp teew ana waaw nga doo ci dëgg booy waaw Lamine xam nga booy yi des dañuy saboté parce que ñun dañuy liggéey mais ñoom dañuy bëgg a sàcc dafa am benn kaay mais Lamine xam nga la moo tooy waar Ada Fass li mu bëree bébé bis bi yéeme na non dafa mën a bëree ma lay wax na nag bu fekkente ne daal am na luñ koy wax na respecté boppam ah. damay barkeelu laa. daal loo gisee combat bi loo ci mën a wax. combat bi Babacar. Bébé Bismi ci entraînement yi. ci signature yi. dafa ñime Ada Fass. ñëw ba ci làmb ji. kenn xàmmeetu ko. loolu na nit da ngay sa bopp ba ca biir làmb. mais su la leer la arbitre say mbokk suñ ñibee noo ko ñibee. bul jël avance walaay wax nga dëgg. Lamine dëgg neex Tafa loo wax. waaw dama am lu ma bëgg lu ma lay féddaliwaat yow Babacar loo xamante ne dama la ko waxoon damay gàttal rek. instant bi dañoo toll ci làmb foo xamante ne waratuñu dellu ginnaaw parce que dañoo dem ba xam làmb miin làmb instant bi làmb ko war a a téeg suñu loxo dañoo dem ba dañoo xam yoon waxuma sa waxu Ada Fass mais waxu Ndiaye production laa lay wax te ci kanam tu am na lu ma la waxoon ci commencement ba tey firnde la ci li ci kanam rawu li bët fu ngeen jëm le kii mars nu mu tuddati euh, waaye le 9 mars ñu ngi jëm fële euh, arène nationale te boobu tam di nga gisaat lu doy waar di nga lu yéeme dama am loo xamante ne dama la dee bi na teg te xoolal saa yu làmb naa ñu ne la Babacar lu ma la waxoon. ana Fane Mbengue ana Malick Niang ñu ngi ci waa ñu ngi ci waaw mais ñu ngi ci kii daal waaw sotti naam sotteegul daal ñu ngi ci mais xam naa ci kanam tuuti di ngeen ci am lu leen lekk. bëcc hmm. wala Bombardier rek rek. waaw Malick Niang rek rek wala Bombardier rek bi ñu ngi ñu ngi waxtaan ak ñoom ñoom ñetti ñoom ñu ngi ñoom. amaane ku gën a yem rek xam boobu dina taxaw léegi allah. kon daan nañ waa Ndiaye ko wax. mais Lamine bul soo nga sol. loo laay bu man xam ku ma génn fii. bu Yankaaw. ana mbay guy gi. mbay guy gi mu ngi fi. dem na wulli suñu waay la. waaw wuli way juram daa génn àddina. ñu ngi ko koy jaale. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin taxare ko aljana. ndax wuli borom mbaax la. Ada Fass suñu mais di nuyu xa Saliou Khoule. Ada moo moog Alioune Seye Senior combat la. na ko jël moog Tafa Mbara dàqati. moog Papa Boy Djiné moo